mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bi ñu santee suñu boroom di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ñaanal suñu kilifa yu tedd suñu tedd yi yu tedd yi suñu boroom bàyyil bàyyil ñu leen fi ba ñuy ànd ak ñoom liggéey bi yépp ak mbooleem jëwri ni sëriñ Mahamadul Muntaqa yi xafisahu llah wa raa di jël siyaar boobu nag di ko teg ci njiital daa daayira muxadamatul xidma sëriñ Afia ak mbooleem ñi nekk ci jumaa ji ñëpp di di sant bu baax sëriñ Abdul Xaadir ci initiative yi nga xam ne ñi ngi koy def ci di dundalaat daara ji di ko jaaree ci wàllu virtuel e, kon tey GMT TV bu grand Mosquée bu Touba di benn bànqaas ci daayira Muxaddamatul Xidma mooy ànd ak yéen seen programme bi mu tuddee daarul maarif al islamiya daarul maarif al islamiya nag bu ñu ko waxee rek seen xel dana dem ci ñëpp ci daarul maarif al islamiya gii nekk ci biir jumaa ji ci Seex Muhammadu Faadal defoon ko fi ci ndigalul Sëriñ Tuubaa eh, yàlla dogal bi jumaa ji tijjee ba léegi mu bokk ci béréb yi nga xam ne ñoo jumaa jee tijji tijjeendoo woon fas yéene fii nekk li fii mu ngi fii ne mu bëgg yaatal am jàngalem nag eh, di ko jaaree léegi ci jumtukaay xarale yu bees yi mu am ci nag ay programme yoo xam ne njàngaleem teew mi dañ cee bëgg yokkaale njàngaleem eh, ñàkk a teew ñàkk njàngaleem loolu nag danañ ci ànd ak yéen ci bànqaas bi ñu ci nekk ñaari ay bis gu nekk da ngeen gis kenn ci ñuy jàngale e, ci ñun dana am ñu ñëw ànd ak yéen seen programme bi ñuy tuddee daarul maarif al islamiya ci ñu fiy jàngale njàngale majalis ca azale ba na mu cosaanoo ngeen ci bàyyi xel nag ñaari mbir mooy dëgg la luy jàngale rek la diine ci ab ab commencement waaye nag des na ci jàngale wolof ndax baat yi ñuy wax dañ koy jàngalee ci làkk wi xam-xam la ñuy jàngale waaye dañ koy jàngale direct ci lu ñu lay jàngale langue bi ba keroog nga ciy agsi di toppit programme bi nga xam ne euh, ci niveau bi gën a bi ñuy tàmbalee di yéeg du di yéeg ba ñuy àgg ci niveau niveau yi gën kawe incha allahu rabbi ci biir njàngalin mi danañu def suñu kemtalaay kàttan ba téere bi ñuy jàng waxtu wu nekk mu xaw a méngoo ak mustawa ki nga xam ne moo koy diglu ndax Euh, programme la ngir jàngale kon nag ñu wax ñu tàmbali ñu dugg ci téere bi téere bi mooy tasawuru siqaar ni ngeen ko xamee ci la ñuy tàmbalee ak jaharu nafis incha allah euh, sa quinze jours yu nekk benn ci ñaari téere yooyu dana am leçon buñ ci indi mu war koo war ko ànd a yéen tey nag ñu ngi leen indil tasawuru siqaar mu bokk ci téere yi nga xam ne ginnaaw géej gi la sëriñ bi daat koy taalife it tënk ci benn hadis bu ñuy tuddee euh, hadisu Seydina Jibril wala say hadisu Seydina Omar ci biir hadis boobu yonente bi di nettali Seydina Omar di nettali ba ca mujjantalu hadis ba mu wax ko ne ko haada jibrilun ataakum yuallimukum ataa jibril yuallimukum amra diinikum li ñuy tudde al umuur ad diiniya muy sawaabit ad diiniya yi yépp mooy li ñëw ci addis boobu loolu nag bu ñu seetloo bu baax a baax addis boobu ci la sëriñ bi tënkee téere bii nga xam ne ci la ñu tàmbalee ak yéen muy tasawudu siqaar dangeen ci seetlu ne imaan mi ngi ci ak juróom-benn xaaj yëpp islaam mi ngi ci juróomi xaaj yëpp bu ci nekk say farat ak say sunna mi ngi ci al ihsaan mi ngi ci it ci ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci di mën a bàyyi sa xel di bàyyi sa xel sa boroom ba mel ne waxtu wu nekk yaa ngi jàkkaarloo ak moom an taabudullaha ka annaka tara fii la téere bi tàmbalee a bi audu danaa billaahi ci yàlla min asaytaani ci saytaane arrajimi ka di ku njam wa inniya naka man uiduha maa ngi koy muslul moom téere bi bi ko ci yow suñu boroom wa duriyataha ak i satam min asaytaani ci saytaane arrajimi ka di ku rabbi yow saa boroom maa ngi muslu bika ci yow min hamasaati sayaatiini ci yar yari saytaane wa aawuzu may muslu bika ci yow rabbi yow saa boroom an yahduruni mu teew ba mu teewale ma mu tàmbalee téere bi ci di ñaan ak muslaay yàlla mu muccal ñu ci saytaane mi nga xam ne da ko dàq ci yërmandeem bàyyi ko mu dem daal di muslul téere bii nga xam ne moom lay bëgg tàmbalee muy aaya bu ñu xamoon ci alquran waaye mu jublu ci mu barkeeloo ko ci téere bii nga xam ne ci la tàmbali di ñaan yàlla musal téere bi ak yeneen téere yi ci topp ci saytaane arrajim di ñaan it suñ boroom mu musal mu musal mu mus musal ñu mu musal ko ci yar-yari saytaane saytaane eh, min sarril waswaasil xannaas allazi yuwaswisu fi suduri naas min al jinnati wan naas am na ay yar-yar yu bari yu nekk ci nit ki yoo xam ne saytaane moo koy def ci moom léeg-léegi nag muy jógee ci saytaan sayatinul insi wala sayatinul jinni yi daal maa ngi ñaan yow suñu borom it nga musal ma ci saytaane moomu ni ñu waxee ne nit ki bu bu tollee ci sukuraat dana ittewoo am ndox seytaane mën na ko faa feeñu ci ay melokaan yoo xam ne mën na ko ndax mën na ko caa ndax ba tubiloo ko muy ñaan nag moom saytaane bañ koo teewale teewale ci situation yi mel noonu daal ci teg ne bismillahi ci tudd tur yàlla lay tàmbalee ay wax sama arrahmaani kadi aji matale xéewali mi def yëpp ci àdduna arrahimi kadi aji jagale xéewali jullit yi ko sopp ci alaxira ni ñu ko miine woon mooy bismillahi rahmaani rahim tàmbalee suñuy wax ci tur yàlla mi nga xam ne moo matale ay yërmandeem fii ci àdduna ëllëg yowmal xiyaam fay jagale ay ay yërmandeem ña ko sopp euh, moo tax ñu koy firee noonu maanaam ci njàngum azale mi noonu lañ ko miine mooy suñuy wax ak suñu jëf ji ñu ngi koy tàmbalee ci turu yàlla mi nga xam ne moo matale ay xéewalam ci lépp loo xam ne bind na ko ci kaw suuf loolu bu ngeen seetloo ñi gëm yàlla euh, nangul ko ak ñi weddi yàlla nangul ko ñëpp a yem ci wàllu wàllu wàllu dund amaa nag bu fekkee dem nañ ba yomal xiyaam nag ña fa suñ borom di jagale ak xéewal di leen tàbbal àjjana rek ñooña ñooy ña fa am xéewal moo tax mu waxee noonu ci arrahim noonu la ko sëriñ bi di faral di fiire min nañ ko ci teer bi bu baax wasalla yàlla na dolli xeewal allaahu yàlla taala kawe xalaa sayidna ca suñu sang ba sang suñu wa mawlaana ak suñu kilifa muhammadin kañ sant tamu tudd muhammad wa ala alihi ak i ñoñoom wa saxbi ak i saxaabaam wa sallama tamu musal wa baraka tabarkel barke yaquulu dana wommate bihaa ci yooyu kulle man képp koo xam ne xara a jàng na haasal kitaaba bi le jannati jëme ko ci aljanna allati ajjana ja xam ne waida dëleef na ko dël mooy préparé nañ ko al mutaquuna waaye ragal yàlla yi amin yàlla nga nangu ñaan yaa rabbal alamin yow borom mbindeef yi ginnaaw loolu nag ni ñu ko waxee eh, mi ngi ñaan eh, mi ngi ñaan suñu borom mu mu mu mu mu julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam julli nag bu jugee ci sa lu mel noonu bu jugee ci sa borom jëm ci mbindeef xéewal lañu koy tekkee waaye mi ngi ñaan xewal yooyu nekk ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne mooy suñu kilifa ci tuddoon Muhammad ak ay ay ay waa këram ñi nga xam ne ñoom Seydina Ali yoog Seydatna Fatima ak Xasan ak Xuseyn ak ñi ci xam ak saxaabaam yi nga xam ne jamonante woon nañ ak moom mooy ñi nga xam ne jamonante woon nañ ak moom daan diglu ay waxam wala ay jëfam fekke ko ba noppi daal di faatu yóbbaale seen diine ginnaaw bi mu jullee ci ñoom mi ngi ñaan xeewal ak barke ak mucc ak bar boo xam ne moom borom téere bi dana ca mën a wom dana dana mën a womate ca yooya képp koo xam ne jàng na téere bii ba mën koo yóbbu ci àjjana ya nga xam ne moom la suñ borom waajale ñi ragal yàlla léegi nag kon téere bi wax ji mu ngi tàmbale fii toujours it ñu ngi sukkandiku ci mbindum mag ñi téere bi ñuy bëgg a jël comme référence nag mooy diwaanul ulumu diine bu bees bi waaye fi mu ne it benn bi la ñu ngi sukkandiku ci mbindum Sëriñ bu ci mbind moomu ñu xam mu tàmbali ne yaqulu dana wax man ka nga xam ne laysa yasaalu déet muy dañ yaxmadu di sant malikahu boroomam ca kooka al abdu moo di jaam ba alxadimu ba di aji liggéeyal yonente bi alayhi salaatu wasalaam ahmadu te turam moo di ahmed mu wax ne yaqulu ahmadu ahmadu mi nga xam ne musta dañ di sant boroomam eh, ahmadu mi boroomam mi nga xam ne moom mooy buuram bi ko moom moom ahmad moom ahmadu mi nga xam ne nag ab jaamub saa borom la boo xam ne day liggéeyal yonente bi alayhi salatu wasalaam loolu moom miinees na ko ay waxam moom digganteem ak boromam toujours alhamdu la ciy jaarale digganteem ak yonente bi ba tey alayhi salatu wasalaam toujours alxadim la ciy jaarale li mu wax nag mooy dane alhamdu xeeti cant yi ñeent la wala mboolem xeeti cant yëpp lillaahi ñeel na yàlla alladi yàlla ma nga xam ne ahsana rafetal na lii ñeel ma ihsaana man kam rafetalu ka nga xam ne laysa yasaalu déet muy dañ muxsinaa di aji rafetal ahmaduhu man danaa ko sant man sëriñ tubaa wa jaadate moom tabeel na ma bi tawxiidi ci tawxiid wa aqawayhi ak ñaari mbokkam sunnatal waxiidi ñay yooni aji weet ja suma topp xéewal wasalaam ak mucc sarmadan guy sax guy sax ba faw ala xalilihi yàlla nekk ci xaritam ba alxabibika di soppe ba ahmada moo ahmed wa alihi ak i ñoñoom maxa sihaabi ànd almuminina ñi di waay gëm almuslimina ñi di ay jullit ñi waay jébbalu maanaam alkurama ñi di waay tedd almuhsinina ñi di waay rafetal ginnaaw loolu mu teg ci ne mi ngi sant yàlla yàlla mi nga xam ne moo ñu defaral moo ñu moo ñu moo ñu moo ma def ba waxtu wu nekk rek damay continuer di nekk nit kuy aj rafetal moo ma def nii ma mel maa ngi koy sant nag moom suñu boroom ci diine ji mu ñu indil mu tënku ci ñetti mbir muy tawhid ak ñaari mbokkam yi di fiq ak tasawuf nga xam ne yooyu mooy yoon yoon wi nga xam ne cere la yonent bi daan jaarale ay waxam daan ca jaarale ay jëfam muy yoon wi ñuy jaaree pour mën a diineel tawhid nag di ngeen ko xamee xam-xam la boo xam ne des koy natt ci xelu doomu aadama fi tolloog fi muy xalaatee ngir ngir mu mën caa xamee boroomam ndax xam boroom dafa laaj xalaat eh, fiq nag mooy jaamu yàlla yi nga xam ne des koy yaram moo koy def Euh, bu dee ihsaan nag mooy li ñu tuddee tarbiya ruuxiya jaam yàlla yi nga xam ne ci wàllu spirituel lay aju nan la nit ki mën a fexe ba situation bu mu mën di nekk rek muy teewlu ba mel ne mi ngi jàkkaarloo boromam. ginnaaw loolu nag mu jël salaatu salaam googu ñaanaat ko ci yonente bi alayhi ak booleem ay saxaabaam ak mbooleem ay waa këram ak mbooleem jullit ñi nga xam ne dañoo mbooleem jullit ñëpp daal. mu ne haza yëgal ne wasaa téere bii nasamtuhoo way naa ko mu xaddama mu di luñ jiital urjuusatan di wayu rajas naafiatan wayu rajas wu di jariñe wa wadi wuñ teral e, mukarrama wadi wuñ teral samaytuhu tudde naa ko moom téere boobu nag tazawu tazawuda siqaari yóbbulum ndaw ñi ilaa jinaanillaahi jëme ci àjjana yàlla ya sil an sil anhaari ya di boroom yol ya mu ne yëgal ne maanaam ha xarfu tanbiih la noonu lañ koy waxee zaagi dis misaara yëgal ne lii téere la boo xam ne dama ko way waaye mu nekk téere bu jiitu ci wàllu jàngin euh, euh, daaj bi ma ko tënkee ni ngeen xamee euh, bu xóorul daaji way yi nga xam ne moom lañu ñu reconnaître ci arab daaju rajas benn la ci muy mustafxilun mustafxilun mustafxilun mu nekk nag daaj yu nu war rajas kon ci niñ ñu koy daaje nekk daaj yi nu rajas rajas boo xam ne wuy jariña la wu ñu barkeel la mu ne téere boobu nag maa ngi ko yóbbu maa ngi ko tuddee yóbbu lu ndaw ñi ndax àdduna euh, dafa mel ne fu ñu jaar rek la ngir war a jàll léegi nag fa nga jëm boo bëggee ab yóbbal bu baax boo xam ne boo demee da nga fekk lu la mi ngi mel ne tukkikat bi nekk bitim réew kooku bu fekkee ne bëgg na bu ñëwee vacances fii ci réewam vacances am neex war na waxtu wu nekk muy am lu muy yóbbante mu ko fay xaar di wut ay yóbbal yoo xam ne buy dem dana ko mën a yóbbaale dana tax bu demee vacances am neex loolu noonu it la àdduna demee ak alaaxira ci nit ki rek téere bii nag ab yóbbal la boo xam ne boo ci jàppee yóbbal la bu la mën a yóbbulul yóbbul bu jot boo xam ne dana mën a ànd ak yow ba àjjana ya nga xam ne moo am ñeenti yool yooyu ñeenti yool yooyu alquran di wax ci suratul xitaali wala suratu muhammad fiha anhaarun min main xayri aasin wa anhaarun min labanin lam yataxayar taxmu wa anhaarun min asalin musaffan di saarbin wa anhaaru min labanin lam yataqir taxamu wa anhaaru min xamrin lasatin lisa wa anhaaru anhaaru min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli zamarat ñeenti yool yooyu muy wax téere bi nee na sab yóbba doon ba foofu mu continué nag di ñaan ne wa asalu danaa ñaan allah yàlla rabbi may sama borom alxabula ak nangu wala am na ak kóolute wa safa akuk sell wa tabjila akuk màggal wa maa ngi ñaan suñu borom kaw na mu def mu nekk haada naf mi wi le way xaayidin aji wommate ila sabilihi jëme ca yoonam wa alaxawma wa gën a jub mu cay wom mu cay jëmee kulla man képp koo xam ne talaa jàng téere bi bu la neexee waaw waaw doxale nga ne wa kaw na haada nadmi xaayidan kulla man talaa tala ila sabilihi al aqwam mu ne maa ngi ñaan suñ borom mu defal ma xabul ci téere bi defal ma ci koolute defal ma ci ak sellal ma def ko ci yàlla rek tax defal ma ci ak màggal maa ngi ñaan suñu borom yi mu def téere bi mu nekk téere boo xam ne day womat képp koo xam ne jàng na ko yóbbu ko ci yoonu wa gën a jub ca yoon ya wa maa ngi ñaan suñu borom it mu def téere bu kaw na ak nekkam saxaadata sibyaani di texeek ndaw ñi wa siibi ak ak borom bijaaw yi wa subbaani ak waxambaane yi wa ak jigéen ñi mu ne maa ngi ñaan saa mu def téere bi mu nekk téere boo xam ne ndaw ñi danañ ci dana nekk seenu texe nañ ci mën a jaar ba ba ba ba réussite ba réussite danañ ci mën a jaar ba euh, réussite ci seen wàllu diine euh, ak mboolem sax borom ba ci sax borom bi jaaw yi ak waxambaane yi ak jigéen yi loolu xamees na ko ci téere yu bari lu ko wax ngir torox la waaye téere bi xamees na ne gisee bu téere bu gàtte ne moom ci ay bay ci ay xet yi mu am euh, ba noppi làmboo li mu làmboo ci diine muy mboolem li ñu tudde soobi diine yi yëpp a ngi ci juróom benn xaaji imaan yëpp a ngi ci juróomi xaaji lislaam yëpp ngi ci ihsaan ci ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale mi ngi ci noonu mu ko nettalee li ñu tuddee umur ak diine lépp a ci kon téere bi téere la boo xam ne eh, yaakaar naa ñëpp ko waaye miin nañ borom xam-xam haada lii awaanu linsiraafi mooy waxtu sama walbatiku lil maraam bi jëm ci càkkuteef wa wajhu sama borom xarat yi mooy sama xemmimteef bi lan siraam ci lul ak dog ginnaaw bi mu ñaanee eh, suñu borom mu defal ko téere bi mu nekk téere boo xam ne day wommate di jëme ci yoon woo gën a jub ñaan suñu borom bi mu defal ko téere bii mu nekk téere boo xam ne day nekk ak texe ci bépp ndaw wala bépp borom bi jaaw wala bépp waxambaane wala bépp jigéen boo xam ne jàng na ko eh, nee na nag kon nañu walbatiku nag soppi waxiin wi daal di jëm ci li ñu taxoon a jug muy téere bi ñu war a taalif daan nag saa borom rek moom mooy ki nga xam ne moom laay xemmim xemmim gudul dog ci ndimbal loolu mu dimbali ñu ba ñu mën koo euh, liggéey ba mu àgg ci jàmm daal nag mu xàddama lii lu ñu jiital la euh, niñ ko xamee ci introduction yu bari daal ne yaa ayyuha sibyaanu yéen ndaw ñi laa tastaxilu bu leen di soxlawoo xanil huda walis ak jub euh, wastaxilu na ngeen di soxlawoo bil ulumi ci xam-xam mu ne rikwaay yéen ndaw ñi bu leen di jéggi ak jub di jëm faneen bu ngeen bëggee lan la gën ci yéen mooy ngeen di dox jaar ci yoon wa gën a jub waaye bañ a ak jub di dem faneen di dox nag di jaar ci yoon wa gën a jub la ci njëkk mooy ngeen fexe ba soxla woo xam-xam xam-xam daal di nekk seen liggéey loolu it ngeen jiital ci comme nii mu ko nii mu ko waxee mu ne fastaxiloo na ngeen di soxlawoo woo bil hifsi ci mokkal alquran wa tilaawa ak jàng wajtani boo te ngeen teet majaalisa saqaawa jataay waay te xeet yi teet mooy mooy moytu mu ne ngeen di soxlawoo mokkal mu jubli ci mokkal alxuraan mooy li jiitu ak di jàng alxuraan ak di moytu bépp jataay boo xam ne amulu leen njariñ rawatina jataay boo xam ne nag ak texee di rek sax nga fay jële doo fa jëlee ak texe wala zimoo te ngeen taqoog man ka nga xam ne laa yesaalu déet muy dañ abida di aj jaamu li rabbihi ñel boroomam xaaida di aji wommate ilaa hudaahu jëmee ci jubug boroomam euh, loolu it leen ci dimbali mooy loolu mu ne ngeen fexeet ba euh, wut kilifa di taqoog koo xam ne foo ko fekk mi ngi jaamu boroomam ca day taqoog day wommat kay taqoog moom di ko jëlee ci jubug suñ borom jubug borom ca mooy genn jub gi rek mooy gi alxuraan di maarifal di ko wax ihdinas siraatal mustaqim wenn yoon wu jub woowu mooy wenn wi euh, daan ne fokk lu man képp koo xam ne baa dara gaawe na waxta zigari ci waxtu ndawam ilal daa jëm ci ak jub istiraaxa kon kook noppalu na waxtal kibari ci waxtu magam mu ne ki nga xam ne e, gaaw na ci waxtu yu mu nekkee ndaw daal di gaaw a gaaw a gaaw dem ci jub daal ne kooku mooy kii noppalu bu nekkee mag initiative bi ëpp solo ci nit kuy kuy kuy jug kon mooy loolu fexe ba gaaw di njëkkanteeg lu baax waaye nag wa man tadaaraka ku ku dab dabaatal na it alladi la nga xam ne xat faata faatoon na minal laxaa ci ay neen wa amarata mu dundalaat al awxaata waxtu ya bi tawbati ci tuub an nasooxi ga di sell wal ixbaali akuk jublu mooy dëgmal ilal ilaahi jëm ci buur ba faase kon kook texe na bil kamaali ci mat waaye nag ba tey mu ne mag mi nga xam ne du ñàkk amoon na ab jaar-jaar wala amoon na laneen lu mu dëgmalootoon lu mu dëgmaloon lu wuteeg boroomam suñ borom dimbale ko nag mu fas yéene dabaatal la ko rawoon ci ay neen waxtoom ya mu sànkoon ci ay caaxaan mu fas yéene ko dundalaat ci tub gu sell ak ak ak jëmalewaat ay ay mbiram jëme ko ci boroomam nee na kooku nag mooy ki texe texe gu dëgg ndax mooy ki jaaroon ci aw yoon woo xam ne na koo sànq ci tawfeexu suñu borom saa borom dimbali na ko ba wàññeeku waat ah, kooku nag mooy ki texe jëmmi texe gu mat dëgg-dëgg xaakum jàpp leen nasihat yi samay laabire yi lëkkum ñeen leen fa tarbaxon ba ngeen di tonawu duniyaan àdduna waxuran ak alaxira ma xaw ànd ak nit ña nga xam ne af laxoo ñoo ñu taxe nañ mu ne waaw sama conseil yi laabire yii ma leen di jox daal na ngeen ko téye bu baax bu ngeen ko defee de da ngeen jariñu àdduna ak alaxira ëllëg it taxe ànd ak nit ña taxe ba pare ba noppi kon loolu moom lañuy tënkee ci mu xaddam mu xaddima bi ginnaaw bi ñëwee ngeen seetlu ci nag ay njariñ yu baree bari muy muslaay gi nga xam ne mu ngi ko tàmbali woon ci daal di ñaan yàlla mu musal téere bi ak téere yi ci topp daal di ñaan yàlla barke xéewal ak mucc muccit goo xam ne day womat képp koo xam ne jàng téere bi ba yóbbu ko ci àjjana ya nga xam ne moom la suñ borom dël ñi ragal yàlla ci àjjana yooyu wax nañ leen ko muy ñeenti àjjana yooyu nekk ci suratul xitaal yi ay fukk ak juróom eh, benn muy masal jannati masalul jannati lati mu muttaquun fiha anhaarun min ma in xayri asin wa anhaarun min labanin lam yataxayyar taxmu wa nahaarun min xamrin lazzatin li zaaribin wa nahaarun min asalin musaffa ñeenti dex yooyu boo boo ko jàngee suñ borom mën na laa dem dimbali ginnaaw loolu it mu sant boromam julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wane ne lii ab yóbbal boo xam ne rek nit ki mën na koo yóbbuloo ba àgg ci biir àjjana yooyu daal di ñaan suñ borom mu defal ko ci xabul defal ko kóolute defal ko ak sell defal ko ci ak màgg daal di def téere biir mu nekk téere boo xam ne yow man képp ku ko jàng moo xam gone la wala mag wala jigéen ba yóbbu ko ci fa gën a mage ci moom ginnaaw loolu it mu soññu ndaw ñi ci ñu bañ a am benn soxla bu dul ak jub ñu soxla woo xam-xam soxla woo jàng alxuraan ci njëlbeen gi ba mokkal ko soxla soxla woo di ko jàngi di ko nafar bañ koy bàyyi comme ni ko ñenn ñiy defee eh, eh, ñi rawatina ñi jàng xam-xam ni ñu koy wax ci téere Masaalikul Jinaan di moytu jataay yi nga xam ne amut benn sens ci ñoom. ca ñuy takkoog kilifa goo xam ne mën na kilifa mooy koo xam ne foo ko fekk day jaamu boromam ci réew man ki takkoog moom di ko yóbbu ca boromam daan képp koo xam ne nag gaawee na gaaw na ci waxtu yu mu ndaw jëm ci ak jub kooku mooy ki nga xam ne moom ëllëg dana nopp bu ne buy nekk mag kuy nopp lu lay doon ki nga xam ne nag daa nekkoon ndaw it yàlla natt woon ko mu jàddoon mu fas yéene eh, rectifié waat daa dina dundalaat ay waxtoom yom sànkoon ci ak tuub gu sell ak jublu jëm ci boromam kooka kooka it nee na mooy ki taxe taxe gu mat daan ne laabire yii daal eh, mooy yi ma leen di wax yi ma leen di jox bu ngeen ci jàppee da ngeen tonawu àdduna ak alaaxira beneen bunt bi ñëw kon ñu ngi ñëw ak yéen ci xaaji diine yi wax nañ leen ko ba tàyyi sëriñ bi mu ngi ko tënkee ci addis boobu jibril bi mu waxoon zaaka jibrilun ataakum yuallimukum amra amra diinikum addis boobu ci lañ toll léegi nag la ca njëkkoon ci addis boobee mooy axsaam mooy xaaji diine yi ba ci njëkk mooy imaan bii ñëwaat ci la ñuy ànd ak ci baabu axsaam baabu axsaami diin ci imaan ci lañ moom la ñuy jiital ak sart ya muy àndal inchaa allahu rabbi in uridu ila al islaaha mastatahtu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ñu ngi sant bu baax di gërëm suñu technicien bii nga xam ne moo yore liggéey bu tedd bi du suñu sàng di ñaan yàlla mu defal ko barke ci liggéey bi monsieur Abdou Khadir Bousso ak mboolem ñi mu àndal équipe bi àndal lii ci jumaa ji yëpp di sant mbooleem euh, internet yi ak euh, képp kuy seetaan CMT Eh, di leen wax ba beneen yoon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم